leeral ni li nga xam ne loolu la sëñ bi bëgg la sëñ bi bëgg dafa wax ne ndaje dafa wax sañoon bu sañoon ko def duñu ko def li mu bëggoon mooy li mu bëggoon mooy mën nañoo togg toggin woo xam ne mën nañoo togg toggin woo xam ne togg bu sell lay doon togg lay doon togg bu tegu ci yoon lay doon yoon lay doon te benn jafe-jafe du te benn jafe-jafe du am li waral sëñ Saliou léegi di wax loolu nag doon wax loolu mu doon wax bokk na ci xalaatam moom loolu bokk na ci xalaati sëriñ moom sëñ bu mag bi moo tax bi ñu ko leeralee sëriñ bi moo tax bi ko leeralee sëriñ bi mu wax na loolu kat rafet na. ndax bu fekkente ne woo nañ fi ñaar nit ñetti nit. ndax bu fekkee ne woo nañ fi ñaar nit wala ñetti nit. ndax mooy kër gi ñaar cin moo fi a tàkk mun na kër gi moom ñaar fukki cin moo fa a tàkk cin lu ne lu mu néew néew dana am ñeenti nit ba mun na ne lu mu néew néew dana am nit wala juróomi nit mun na loolu nag mbooloo day daje man nit mën naa jógee Touba daan ne damay seeti diw sàngam ca cin la te nit mën naa jógee Touba ñoo ne day seeti kenn ci jiw mu jógee fii Mbàkke la damay seeti diw baa mu jógee Mbàkke ñëw bokk jotaay bi bu yàggee bu boobaa mbooloo daje fa mun na bu yàggee nag mbooloo dafi daat daje kon nag bu boobaa nag wax lu jëm ci bi da ci daat yomb kon li nga xam ne moom lañu mën a def te mu doon loo xam ne buñ ko defee mu ne li nga xam ne moom lañu maa def te mu doon loo xam ne buñ ko defee danañ ko liggéey te duñu sonn danañ ko liggéey te duñu sonn te kenn duñu wax loo xam ne bokkul ak na war a demee te kenn duñu wax lenn loo xam ne waruñu ko wax bu boobaa sëñ bi nee nañu defee ko noonu su boobaa sëñ bi nee nañu defee ko noonu li tax mu ne kenn ku ne li mu bëggoon li tax mu ne kenn ku ne li mu bëggoon nag na nga dem sa kër maanaam togge ko foofu na nga dem sa kër togge ko foofu ba noppi nag yow yaay nag xool nooy wax ak say sa sa sa mbooloo ba noppi yow yaay xool na ngay wax ak sa mbooloo su defee bu boobaa li nga bëgg di nga ko mën a am bu boobaa li nga bëgg da nga ko mën a am ndax mbooloo bu ñëwee fii moom ndax mbooloom bu ñëwee fii moom wàññi leen du yoon wàññi leen dootul yomb. ndax maa ngi dem kër sëñ moom. ndax maa dem kër sëñ bi. doo fa dem moom yóbbu. doo fa dem moom kenn du ko wax kenn. kon kenn ku ne bu nekkee sa kër nag. bu nekkee sa man nga ko wax ne ah yow day nangam ak nangam wala bu ñëw siyaare daal na nga ko bëggee ci ni la ko sëñ bi su nekkee ñay topp nag dinañ mën a fexe bañ aaru. ñay siyaare moom kenn nag kenn doon aaye moom. sëñ moo waroon mu ne. moo tax sëñ bi waxoon ne. dafa dafa bëggoon lenn dong moo soppeeku ci li nga ne moom la ñuy def. lenn rek moo soppeeku ci li nga xam ne moom la ñuy def. mooy toog bi moom lañ doon toggee fii. mooy kenn ku ne dafay defee fa nga xam ne moom la gën a. kenn a jubu. waxtu wi tamit dafa waxoon ne deux heures waxtu wi daa waxoon ne deux heures pile. ba añ yi ñëw teew. nañ fexe ba lépp ñëw teew. kenn ku ne fa nga ne. ba nga xamee ne toog nañ ba noppi. ba nga xam ne toog nga ba noppi. kilifa ga nga xam ne moom moo leen jiite. kilifa ga nga xam ne moo leen jiite. ñaanal ñaar nit mbaa ñett nit ña koy yem. ñaanal ñaar mbaa ñett ña ko mën a yem. su defee ñu mën indi ko fii. su ko defee ñu mën ko indi fii sëriñ bi. ñi nga xam ne ñoom ñoo ko daan dalal. ña nga xam ne ñoo ko daan dalal. ñi nga xam ne ñoom ñoo ko daan yóbbu muy kilifa yooyu sëñ bi tudd. ña nga xam ne ñoo ko daan yóbbu muy kilifa yooyu sëñ Saliou tudd. ma wax su defee bu boobaa ñoom ñoom ñooy recevoir bool yi. su boobaa boobaa nag ñoom ñooy jël bool yi fii. ñi nga xam ne ñoom ñooy dajale bool yi fii tamit. ñi nga xam ne ñoo dajale bool yi fii itam. bëri bëri wër ko mën a weesu lu ñaar fukki lu mu bëri bëri du weesu ñaar fukki nit bu defee bu boobaa bu ko defee su boobaa yóbbin bi tamit yóbbin bi tamit am aw aw yoon am aw yoon ndax même sëñ Cheikh la fay daf maa wax ne ma mu ne même sëñ Cheikh da ko waxoon ne mbooloo mi wàññeeku mbooloo mi wàññeeku te oto yu bëri moom moo ko gën a oto yu bëri sax moo ci gën nee na même séddale bi nga xam ne moom la ñuy séddale mu ne séddale bi nga ne moom lañ daa séddale nee na ci oto la bëgg ñu teg ko ci oto la bëgg ñu teg ko ci bëggul ñu yenu ko bëggul ñanu ko. su defee bu boobaa. su ko defee su boobaa. liste boo xam na dana ko am na liste boo xam dina ko joxe. su defee fenn a yóbbu ñu yóbbu. su ko defee lenn mën na fañ ko war a yóbbu ko fa. li nga xam ne moo jëm njaare li nga xam ne moo jëm njaareem nee na dana mu oto boo xam ne tamit day nekk njaareem mu ne nañu oto boo xam ne moo nekk njaareem su defee ñi nekk fii bu ñu tegee oto bi su ñu nekk fii bu ñu ko tegee ci oto yi su defee bu àggee foofu ñu teg ko ci oto mbaar su àggee foofu ñu teg ko oto ba fa ne su defee mu mën a mën a séddale mu mën koo séddale waa njaareem seen ko jox mu ne loolu sëñ Cheikh loolu la ko noonu la ko bëggee woon la ca tegu nag mooy moo la ca tegu mooy li ci des suñu liggéey la li des suñu liggéey la ndax ginnaaw kumte ginnaaw kumte la ci farata mooy boole nga xam ne mooy dem. la nga xam li ne moom nan naan toggee xam ne moom nan naan toggee fii moom noonu fi jóge ci ginaar dana dem li fi jóge ci ginaar dana dem moom la koy toggal lépp rek daa ak matt mi ak matt mi lépp ak la nga xamee moo ci a lépp loolu nag système bi nga xamee ne moom la ñu def. mu ne loolu nag li nga xam ne nañ ko bëgg a defal doxalee. mooy ñi nga xamee ne dañoo féete Mbàkke. mooy ñi nga xam ne dañoo féete Mbàkke. kenn ku ne da nga am délégation boo xam ne saa bu xëyee. kenn ku ne da nga am délégation boo xam ne saa bu xëyee. dina ñëw jël si li nga xam ne moom moom moom la ñuy toggee. dina ñëw jël si li nga xam ne moom la ñu war a toggee. ñi nga xam ne dañoo féete Touba. ñi nga xam ne dañoo féete Touba. am nañ ay oto. am nañu ay oto. ñoo ñoo si ko. yoo xam ñoo ñu jël si ko. su defee ñu noppee. bu ko defee su ñu noppee. ñu teg ko ci ko fii. ñu teg ko ci oto yi ñëw wàcce ko daal di ñaan lu daal dem. ñi nga xam ne tamit yàlla dogal na. xam ne yàlla dogal na. yor

waaye mun bëgg nañ ko taale fii ni ñu ko daan taale bu yàggee tamit lan doon bañ dina am bu yàggee lan lan doon bañ dañu xaar ne dina am toog ba nga xam ne nag sa kilifa la sonal sa kilifa toog ba nga xam ne nag la sa kilifa bëggoon coow amu ko ci loolu dafay métti leen loolu dafay métti ci moom te jàpp nañ ne at mi dong lay doon te jàpp nañ itam at mi rek lay doon bu jeexee ñu delluwaat nañ daan def bu jeexee ñu dellu nañ daan def ñaareel bi li ci tegu mooy mu ne la ci tegu mooy mooy kumte yi mooy kumte yi kumte yi gis nañ ko ni ñu ko daan doxalee mu ne kumte yi gis nañ ni ñu ko daan doxalee bëri loo xam ne daf leen ko ci teggi mun na sëñ bi dafa wax ne daa lu bëri loo xam ne ko ci teggi ndax jamono moo ko laaj ndax jamono moo ko laaj ndax nee na kumte yi ndax nee na kumte yi kenn ku ne da nga daan rey lu tolloog ay mu ne kenn ku ne daan nga lewatal lu mel ni fukki xar ba ci ñaar fukki jëm kaw nee na nag loola noona mu ne loolu noonu nag jamono laajatu ko ndax mbooloo lay ndax mbooloo lay indi la xamee ne moom nga nar a rek la nga xam ne moom nga war a def nee na bu boobaa. su boobaa. day jar nee na nee na ci lu ne dafay day sax mu def ko ñaari ñaari toftal. mu ne ci lu ne day sax mu def ko ñaari toftal. bu doonee nag loo xam ne mi ngi dund. mu ne bu doonee loo xam ne day dund nag. ñu dajale ko buñ ko dee bul seen bi. ñu dajale ko nag indi ko buñ ko dee bul seen ñu ñëbul ko. waaye dafa wax ne maanaam ci lu ne. waaye dafa wax ne ci lu ne. li muy sàkk ñu def ko. li muy sàkk ñu def ko ay toftal. ay toftal yi nga xam ne moom la daan ànd. moo toftal yi daa ànd. su defee ba jamono soppeeku nag. bu dee ba jamono soppeeku nag. buñ mënee delluwaat ba téeméer sax. buñ mënee dellu ba téeméer sax ñu def ko. li nga xam ne moo jëm ci wàllu fur yi. mu ne la nga xam ne moo jëm ci wàllu fur yi. dem bi ak dikk na dem ngi ak dikk bi daa yombatu léegi dafa wax mu daana daa sàkk woon ci lu ne ci lu ne maanaam carton pomme carton pomme bu dee bu dee ko def bu dee danañ ko def carton pomme carton pomme banaana lu ci nekk kenn carton rek ca daa li mu naan bu mu ne bu fekkee ci li ñuy la bu mu weesu juróom nee na bu boobaa nee bu boobaa mbooloo mi naa bañ a bëri mbooloo mën naa dem dina fa dem bu jàllee bu boobaa mu ne bu jàllee maa def da nga def ko ci lu baax moo soppi looloo tax bëggoon ko nii loolu sëñ bi waxoon ñi féete Tuubaa daal bu ñu jël si liñ daan jël si. ñu féete Mbàkke ñu féete si liñ si liñ daan si. bu dee bu dee li ko waxee. ni ko waxee rek mu ne heure nag jamono ju ñaari waxtu lay doon. ñu indi fi ñu dee ñu mën koo jébbale. ñee dem Touba dem Touba. dem dem dem dem Njaareem dem Njaareem. ñu mën a teel a ñibbisiwaat. a a na bu ñu defee noonu danañ ko liggéey. suñu defee noonu dañ ko liggéey dañ a liggéey. ba sëriñ beer la mu bëgg dana ko am. ba sëriñ mag la mu ci bëgg dana ko am. ndax jamono moo demee noonu. waaw toftali daal dafay wax ne bu dee looloo xam ne lu ñu mën a def daal bu dee lu ñu mën a def lu bëri la. nañ ko dajale. ko jëbal loolu la bëgg ñu doxal ko noonu jërë ngeen jëf jërë ngeen jëfati dafa wax ne képp koo xam ne bëgg nga koy jaar sama war fee ñëw na nga ñëw na nga daan ñëw ci